doomu koor bi moo nekk noonu Moustapha Tine Prési production moo sargal ci bis bi nga xamante ni Bébé Diouldé moo koy bëre ak Brise bu Thiaroye Moustapha Tine noonu lii lan la ci ambiance al bi suble na ñaari xale yi ñu ngi leewaatoo diggante capitaine ak capitaine yow la woykat bi woy Ndoumbar moo ngeem moo ngeem lu weex li ñu ngi leewaatoo diggante Ndoumbar ak capitaine ñaari xale yi ñu ngi leewaatoo Ndoumbar moo ñu woon ginnaaw capitaine moom lañ jàkkaarlool laa ilaaha illallaah bagaar Borel Madura am na foofu diggante Ndoumar ak capitaine ñu ngi leewaatoo Ndoumar moo ñu woon ginnaaw capitaine moom lañ jàkkaar lool yéen ànd ak ak Tibali as moo nekk ci cadre mbokk yi tey dañuy bëggalanteeg yéen ci li nga xamante ni mooy làmb gis ngeen li ci am yaasu làmb waaye capitaine bi. capitaine door na léegi génnaat Ndomar moo koy déglu Ndomar mooy poids lourd capitaine moom lañ jàkkaarloo ñu ngi leewaatoo ba léegi capitaine door na Ndomar fayu ñu ngi leewaatoo diggante Ndomar ak capitaine capitaine dooraat na Ndomar tàkk na ci kawam laa ilaaha illallaah Ndomar ak capitaine ñu ngi leewaatoo waaye combat bi combat bu neex la capitaine wàcc na dóor Ndomar fayu mbaa dóor mu daaw doom capitaine ak Ndomar ñu ngi leewaato capitaine ak Ndomar Ndomar moo ñu woon ginnaaw capitaine moom lañ jàkkaarloo mbokk yi ñu ngi jàppante loxo ci kaw capitaine mu ngi mépp waaye dóoragul Ndomar ak capitaine ñu ngi leewaantoo capitaine door na Omar Faye mu ngi leewaatoo ba léegi diggante Omar ak capitaine combat spécial mbokk yi tey nee naa leen Prési moo ñu fi woo dimanche le 20 mars 2022 au stade Iba Mar ci diggante Bébé Diouldé ak Brise de Mer numéro 2 yi ngeen ak anti-banlieue Modou Mbaye 2 booy bu ndaw bi moo nekk ci micro as mooy cadré. bu rafetee rek moom la jëlaat laa ilaaha illallah capitaine door daw nañ daje nañ laa ilaaha illallah ñi ngi doonante yu birkin diggante capitaine ak Ndomar stade Ba Irine ndeysaan làmb ngi nii combat spécial waa police fan la jëlee ñi capitaine ak Ndomar ñi ngi leewantoo capitaine ak Ndomar Ndomar moo ñu woon ginnaaw moo ngeen boo ngeen lu weex li capitaine moom lañ jàkkaarloo ñu ngi leewaatoo ba léegi combat spécial arbitre nee na ngeen bëre diggante capitaine ak Ndomar capitaine ak Ndomar ñu ngi leewaatoo Ndomar moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen lu weex capitaine moom lañ jàkkaarlool mbokk yi capitaine wàcc na dóor capitaine ak ndowaar ñi ngi xeex capitaine ak ndowaar ñi ngi xeex ndeysaan capitaine ñëpp na léegi lu mu nar capitaine ñëpp na léegi kenn ku ne mu ngi déglu moroomam diggante capitaine ak ndomaar capitaine moo ngi ñandu Ndomar door na Ndomar daw na jël na ko capitaine bañ takk na ko wala laa ilaaha illallah xale yaa ngi bëre capitaine ak Ndomar capitaine Ndomar door capitaine mi ngi def ay déplacement bëtt na ko wër na ko ndox ba daan na ko laa ilaaha illallah eh! waa ku ma sa kan moo ma sa waaye di yéen a gën a rëy capitaine bëre na bëre bu rëy daan ki nga xamante ni mooy Ndamar Ndeye Sakk Isma noonu la lan muy bëre si ñoo ko toj ñoo bokk dëkk. ñu ne woon a jom flag fay la. waaw noonu la fay demee. dama jox kanam ko baax. lan moo ne sa kanam. si kanam waaye li ma des aar laay séntu. bu ci loolu tamit bokkuñu mais ñooy sant yàlla bu baax. ñaata ko baax man li ñu may quatrième combat bi. ñaata victoire trois victoire. merci jërëjëf.